donc ci wàllum participation euh, Sénégal ci coupe du monde di set bi donc euh, malheureusement ñu éliminé ñu barki démb au tir au but euh, man vraiment euh, des benn déception laa ci am. déception bi mooy parce que y la possibilité quand ñu mën a qualifier en quart de finale effectivement xale yi vraiment def nañ lépp. mais bon amoon nañ possibilité bu ñu concrétiser woon suñuy occasion vraiment parce qu'on a dominé vraiment de la tête aux pieds la France donc euh, man mon départ bi un avant le match je me disais que la France avait une bonne équipe mais bi ma match bi bi mu démarré j'ai vu qu'il y de la place pour que ñu mën a qualifier quand même en en quart de finale et bu ñu qualifié woon on allait avoir un adversaire comme Ouzbékistan te ñooñu déjà gagné woon nañ leen euh, en match euh, amical 4 buts à 0 donc y de la place vraiment mënoon nañ sori xale yi vraiment euh, def nañ lépp mais le but a manqué te boo dul euh, concrétiser say occasion c'est toujours comme ça au finish déception nga ciy am te gis nañ ni déception bi mooy élimination bi et surtout que amoon nañ su fekkoon France sax moo ñu mënoon là on pouvait quand même accepter mais man sama problème c'est que dañoo mën France dominer leen am ay occasion war leen concrétiser malheureusement on n'a pas pu le fair donc loolu moo tax mu nekk une déception pour man mais xale yi quand même def nañ li ñu waroon euh, góorgóorlu nañ staff technique bi tamit góor góorlu na ak euh, dirigeant yëpp mais moi je pense que quand mënoon nañ gën a sore ci compétition bi